asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu mbokku taalibe yëpp rawatina mbokku Rafah TV ñi ñuy seetaan fépp partout dans le monde. jàngat biñ ci am mooy euh, damay joxoñ baaraamu tuuma euh, ministre de l' intérieur directeur u parce que dama gis ne foo xam ne da nga xam nga ne fii bërëb buy taala nga ñëw def fa tali te jiitaloo fa canalisation ndox mi mënatut a dem fenn ay nit dëkke fa bu tawee. durant six mois ba sept mois yëpp kenn ku nekk génn sa kër dem di wuti foo dëkk loolu lu doy la te dara waralu ko ludul dul ñàkk assainissement te ñi nga xam ne ñoo jiita mbir mi te war cee wax ak ñoom li ñu war a wax ak ñoom waxuñu leen ko. ministre de l'intérieur barki bu ñëw na Touba di visiter dëkk bi nan la mel pour préparation màggal gi fi koy jaarale fenn fu ci am ndox amul liñ koy wax mooy lépp gongo liñ war a def lépp def na ko waaye yaakaar naa tey jii bu duggoon fii ci guy mbind fii nga xam ne matul 100 ak barabu sëñ Sidi Muxtaar matul 100 mètres ak jumaay guy mbind matul cent euh, euh, euh, matul cent mètres ak kër sëñ Abdou Lahad Mbacke moom Serigne Fallou matul cent ak kër sëñ Modou Mamoun moom Serigne Fallou matul deux cent mètres ak hôpital Ndaamaatu ku dikk ba gis lii sa yaram dina daw te ay nit a fi dëkk te lii ku ko gis xam ne baaxul ci wér gi yaram baaxul ci xale yi baaxul ci lend lu mu di doon te nii lañ dëkkee ak ak ak moom nag diiraan nawet bi yëpp. koñ bi yëpp gox bi yëpp ak mboolem li war guy mi de nii lañ dëkke pour nga dem day jafe pour nga ñëw day jafe boo génnee taxi boo ne gaar mu daw laa jëm wala guy mi laa jëm lu mu gàtt gàtt dina la facturer deux mille cinq cent te dara dara waralu ko lu dul amul benn mbedd boo mën a jaar doo fekk mu fees dell ak ndox lu metti la ci askan wi la te it ñu ngi koy jooytu waaye dafa mel na nopp yi fi ñu koy jooytu jëme ko fa ñooñu dégguñu dégguñu jooy yooyu noonu moo tax nag tey ñu jogal suñu bopp fas yéene yéen ñi nga xam ne yéen ay porteur de voix ngeen yéen a ngi dox ci dëkk bi di xeexal dëkk bi di wane njariñul dëkk bi ñu fexe ba ngeen ñëw fi pour gis lii man koo diffuser ba alhamdulilah yàlla mën naa dogal ñi ci war a jot jot ci ba solution am ci waaw jafe-jafe yi ndoxum taw mi taa taataa yi di jural askan wi eh, mën nañ ci lim lu mel ne sibiru kenn ku nekk xam na ne taataa fu mu am yoo dina fa bari te yoo fu mu bari sibiru dina fa am ndax kenn ku nekk xam na ne maanaam wàllaate sibiru dara gënu cee gaaw yoo yoo moom bu dee matt ku sibiru di matt keneen rek daf koy daal di mën a wàll sibiru ci nu mu gën a gaawee beneen bi ci topp mooy mbott yi ak yeneen ak yeneen xeeti biir yuy daw ndax nit ñi bu ñuy dem faaw ñuy jéggi ndox mi te ndox mi ku ko xool xam ne ay microbe rek la feese te mënoo jaar fenn fudul ci biir ndox mi kon ay arbus ay tànk yu am ay góom leen lu nekk mën na cee juddoo li ci mën a juddoo buñ ko doon lim du jeex kon ñu jot cee jàpp yooyu rek te xam ne li ci mën a am bari na leneen ak leneen ak mi ngi ci biiram ci ay ni ñu war a def pour mu saafaraw mooy ñi nga xamante si nii ne yàlla dafa dogal ne ñoom ñoo nekk ci bopp réew mën a mën a mën a man bañ jox la da ngay wane li taxoon ñu jox la kenn ku nekk xam na ne tali du naan am ndox godron munoo god te tawit day am incha allah at mu jot nawet dina am te nawet bu amee li ñuy ñaan mooy ndox mu bari li ñu war a jiital mooy fépp foo xam ne ñu ngi fay jaarale godron ñu def fa canalisation ba nga xam ne ndox mi bu ñëwee mën a dem ndax ndox moom faaw nga wutal ko fu mu dem wala bu dikkee taxaw waaye nag mënoo di godrone di dem rek te li ngay godrone wutaloo foo xam ne ndox mi am na yoonu boppam bu dikkee tamit nii rek lay mel ba pare tamit xaalis yàqu la parce que ndox fu mu taxaw six mois dina am dégâts matériel bu mu fay def faawu moom beneen tali la ñuy wax mais bokkatul tey ñoo ngi jooy ndox mais bu fi ndox mi jóge woon dinañ jooy leneen mooy ay kàmb ay pax mooy daal am mais tali moom dootoo ko dégg ndax ndox mi munu fee def six mois ba pare tali ba des fa doon ab tali na meloon loolu mënatut a nekk kon am na ci loo xam ne boo ko xoolee yàq alal la mënoo di def loo xam ne da naan maa ngi koy def ren bu déwee nee mu yàqu te nga continuer di def loolu loolu buñ koy xool doo xam ak ñàkk xam la doo xam yàpp sénégalais la wala keesu réew mi daal yor ko di basar basaree dafay mel ne moo leen neex loolu it luñ war a xoolaat la